ISRA di wéyal jéego yi muy amal ngir gunge ñi yëngatu ci mbayum ceeb ci vallée du fleuve Sénégal ba ñu am ay xeetu jiw yu tolloo ak jamono ISRI 12 moom nag lañu ñu tàmbalee ci ay test yoo xamante ni amal nañu ko jéego yi ñu tàmbalee ko fa nga xamante ni moom moo di ca diwaan bu Ross Béthio foofee nag GIE Kaneen Bokk Jom dal dee amal lu toll ci juróom-ñetti hectare yoo xamante ni ji nañ ko foofee. Khalifa Kane dellu siwaat nak ci ngëneel yi nga xamante ne nemeeku nañ ko ci bile jiwu constat bi ñu def daal mooy usdi bi daal développement am gaaw na hmm. parce que biñ ko jiwee léegi deux mois la amagum mais mi ngi ci kaw bon aussi nuru na aussi ku ñeme xorom parce que yi dañu parcelle xorom lañu te bo gisee ni xorom bi feeñu si doon yeneen jiw da ngay gis cati day lakk gis euh, nga xool ceeb bi mu zone mais bo xoolee ki mi ngi mi ngi aisé wu sentirul xorom bi sentiru ko bon te développement bi aussi gaaw na waaw. ñu ko tàmbalee ak tey ci diirub ñaari weer jëm ko ci campagne hivernage bi la ñu ca nemmeeku moom moo di ay ngëneel. naka noone mu di jiwu boo xamante ne bàyyi nañu xel ni lii di picc yabu ko loolu yi nag bokk sax ci li nga xamante ne dinay gàllankoor mbay yi naka noone nag yaakaar mën a gën a am ci li nga xamante ne moom moo di bile xeetu jiwu tax président bu GIE Kaneen Bokk Jom di ñaan rek ñu bile jiwu gën yaatu ci gox wàllu yi nee nañ picc yabu waaw bon peut être ceeb moom bu ko picc rek nga rendement am bare mu bare rek mu disponible waaw loolu daal bu disponible ne moom gars yi moom fu ñu gis résultat rek dañ koy dañuy daw jëm foofu waaw parce que kii mi am na deux mois kii bu defaatee quinze jours lay focc semence bi di premier intrant loolu di kaddu kii di président GIE Kaneen Bokk Jom ba tax mu jàpp rek ni lépp rek ci taxawaay war nañ ko gën a yokk ngir nag ndëgër lay gën a am ci bile xeetu semence nga xamante ni bu sottee rek dina indi lépp loo xamante ni moom moo di noflaay ba yenn xeetu jafe-jafe yi jëm ci wàllu rendement loolee dal di teggeeku ba faaw. mooy premier client. parce que mooy premier intrant euh, jiw bu baax boo ko amulee mënoo yaakaar dara. Hmm. bii nag di jéego bi nga xamante ni bokk na ci yi jiitu yi nga xamante ne ñii di ISRA ñi ngi koy amal ci vallée du fleuve Sénégal ci bile programme nga xamante ne dañuy gën a saytu taxawaayu ISRI duuse ginnaaw nag bi nga xamante ne jot nañ koy génnee ci labo yi.